mbokk yi lu bees tàkk ci complexe salon Asidrul Moubarak ay gaamu produit yu ñu defar lu bees tàkk taaral ko jagleel ko bépp jigéen ngir taaram taaram seen salon Asidrul Moubarak di yëngu ci lépp luy taaral jigéen lu ci mel ni soin capillaire coiffure soin de visage net defar kanam pédicure ak manucure ñu yor nag ay ndaw yu ñu tàggat taaral leen ci lépp luy taaral jigéen Sène unité 25. villa numéro 403. jàkkaarloo poste courant unité 21. téléphone 77 675 74 31 118 210 30.